alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi ngi sant yàlla di julli ci mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi di gërëm yàlla bi fi bi ñu fi yàlla indiwaatee beneen yoon xam nga léeg-léeg yenn xeewal yi da dem ba yaakaar ne dangay ngay gént du dégg ndax naar bi waxoon na ko mu ne a xaqan ana fi kawlaxal yawma an umu بنظرة وجه الشيخ من هو عيلم حقا أنا في كولخ اليوم أنعم بنظرة وجه الشيخ من هو عيلم هذا مقر الشيخ ذاك مقيله أمسجده هذا أمني أحلم naar bi nee ne xaqan ndax dëgg la ana fi Kaolack al yow ma an umu man maa ngi ci biir Kaolack tey di xéewlu ndax Kaolack junj la ci góoru yàlla yi nekkul turu dëkk bi kese a xaqan ana fi Kaolack al yow ma an umu est-ce que man dëgg la maa ngi ci Kaolack di xéewlu bi nazrati wajhi cheikhi ci xool kanamu baay Niass suñ jàkkaarloog rawdu bi rek ñoo ngi mel ni ñoo ngi jàkkaarloog Baye Niass radilaanu mu ne a haada maqarru cheikhi zaaka maqiluhu a masjiduhu haada amanniya ahlumu a haada maqarru cheikhi mu ne est-ce que fii mooy këru Baye këru Baye a ngi nii zaaka maqiluhu est-ce que fii la doon Baye di yendu ca mbaar ma a masjidu haza mu ne jumaa jee nekk nii am an nii ahlu mu wala man damay gént waaw li mu li waral loolu mooy xéewal bi mooy rëy ci yow ba nga yaakaar ne lii da ngay gént moom lay olof di wax xaaral ma kaata sama bopp xool ndax damaa nelaw wala nelawu ma waaye alhamdulilah ñu nelawuñ Baye Niass moo ngi woon suñ xol moo ngi woon suñ dënn avant ñoo ñëw Baye Niass nag moo ñaan yàlla maanaam képp ku taxaw ci rawdaam bi di ñaan yal na ko yàlla may soxlaam waaw Baye Baye Niass moo ne تفسر مهما ذلك القبر بؤسرا أسائل ربا واهبا متفضلا ليرزق أبيدا كل ما فيه حيرا baay nee ne fa suuratu Ibrahima boobu maanaam foto baay baay la dafa jël photom bind ci bayti mu ne fa suuratu Ibrahima mu ne jëmmug baay ñes tabqa dana des ba àdduna jeex te zakkuran nit ñi di ko fàttalikoo jëm ci yàlla waaw zikra bi gën ci mooy balay delloo ci yàlla ndax sëriñ sax bi gën ci sëriñ yi mooy goo xam ne yuzkiruhu llahu iza raahu wa yusilu l abda ila mawlahu mooy kii fàttali jaam ji yàlla su ko gisee te su jokkoo ak moom yegg yàlla Baay Ñas ne na man sama photo rek waxul moom jëmmam moom ci boppam waaye photoom dana des fii ci àdduna di nekk te zakkuran fàttaliku gi ñuy fàttalikoo baay te fàttaliku baay mooy fàttaliku yàlla loolu la saydna saydatuna aïchatu waxoon ne akthiru min zikri umara فإن عمر إذا ذكر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله bari leen lu ngeen di fàttaliku Omar Omar ibn al-Khattab ndax su ngeen ko fàttalikoo dana leen fàttali maandu su ngeen fàttalikoo maandu fàttaliku yàlla ndax yàlla mooy maandu bàyyi nee na man sama photo tabqa def fii des te zakkuran mu nekk fàttaliku kaay gu ñuy fàttaliku ba àdduna jeex fàttaliku ko jëm ci yàlla nag fa suratu ibrahima tabqa tazakkuran ida abalil mawla al ali su nekkee ne bés ñëw na ba ñu ne moom dellu na ca yàlla photo bi dana des fi nekk tazakkuran wa tafakkuran nekk tamit xalaatukaay nit ñi di ci xalaate yàlla di ci doxee sayru jëm ca yàlla subhaanahu wa taala fa suratu ibrahimu fa suratu ibrahima tabqa tazakkuran ida abali lmawla al ali wa tafakkura bàyyi nee na mata dafa nuuni saa buñ ma suulee fi turaa bi ci suuf mu ne li gën a néew li ñuy wax ci man mooy tahaddasu danañ waxtaande ne kii suul nañ ko tey ci suuf waaye lakat kaana yan wil xayra law kaana muqsira ku bëggoon lu baax la donte daa gàttulu wala yàlla yi ñooy waxee noonu ngir wàccee seen bopp waaye ku nekk xam na ne Baye musul gàttaliku ci wàllu lu baax dundam yëpp lu baax la ba mu xëy génn àdduna mais suñ ma suulee ëllëg ci suuf li ma bëgg a wax sama xamxam xam du suulu Baye xam-xamam fii lay des ba abadan suul nañ jëmm ji waaye mbëggeelu yonent ci gaa ngi des lii signification la ne mbëggeelug Cheikh Ibrahima ci yonent bi moo ngi des di daw ci kaw suuf ba léegi suul nañ Baye Niass waaye sekkereem ci alxuraan du suulu baay mooy jëmm alxuraan guy dox ci kaw suuf suul nañ baay waaye duñ suul leer yi suul nañ baay waaye duñ suul mbóot yi mata dafa nuuni fi turaabi saa buñ ma suulee ci suuf danañ mus a waxtaane kii de ku bëggoon lu baax la donte dafa gàttulu woon ma Baay Ñas nag nee ne usaa'ilu rabban maa ngi ñaan yàlla waahiban mii maye mutafaddilan moom mii le di jox jaam yi ngëneel maa ngi koy ñaan ñu ne loo koy ñaan mu ne li yarzuq ubaydan kulla ma fii hayara maanaam képp ku taxaw fii ci rawd bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jox ci ngeneel loo xam ne daf koy gëlëmal loolu bàyyi ñaan na ko te yàlla nangu na ko ñaata aajo ñoo faju fii ku yaakaar ne wali yàlla su génne aduna jeex na boobu da ngaa xamul luy wali yàlla yi fal awliya wa in gaabat jusumatuhum an aalamil jismi fal arwaahu fi lxadari wali yàlla yi donte ci seen yaram yi fàdduna ci mbindeefuk yaram seen ruux yaa ngi abadan fiñ nekk nii yaani Baay Ñas moo ngeeg ñun uhabbizu law kaana cheikhu maana bal huwa maana ruuhan wa in gaaba anna jisman la in gaabat anna suuratuhu fa maanaahu aqrabu ilayna min suuratihi jëmmug Baay suñu fàddoo maanaa gi ak ruuhu gi moo ñu gën a jege Baay boobu moo ngeeg ñun duñu mus a fàddu abadan suñ teewee fii ak suñ teewul moo tax Baay ne wa saxir rijaali ma maghibi wa mashhadi nang ma tàggatal sama góor ñi su ma fàddoo ak su ma teewee balaa ngaa nekk taalibe teew bi ak ñàkk teew bi yem ci yow soo yeggee ci na bàyyi foo toll rek yaa ngi koy yëg moo ngi mel yaa ngi ci rawdu bi moo ngi mel yaa ngi ci jumaa ji boobu yàgg nga ci nekk taalibe baay yàlla ñu ko yàlla defal ci barke alxuraan yàlla nañ fi ñëwaat ay yooni yoon ñoo ngi ñaanal shababul fayda ñoo ngi ñaanal baay mbay ñoo ngi ñaanal sabaabul fayda ak ñi nekk ci sécurité bi fii li nga xam ne seen yitte yëpp mooy na mbir yi dox nam war a doxee ñooñu seen pay ci yàlla la nekk du ci loxol doomu aadama yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla yokk yàlla na leen yàlla ubbi ci barki alxuraan ci dara daraja yonent bi saa sallam ay après jafaɗami anda innde ko eliman ka eliman ka eyi fof yooɗi radio fulɓe koko yooɗi kulaagu Eh, ñalawma o ko joɗɗo nelaɗo ko joɗɗo bañes ko joɗɗo ko kah mo kalɗa o tan hokkorimi andu beele mo yooɗi walla mbo yoɗani kono fof no yooɗi eyyi eh, min beltima ee e hawrude e maɗo minen calmina dendagal fulɓe e dow leydi fodde temedere million e capanɗe joyi million pullo guurowo e nder ɗodde afrique minen ma nedde salminanu hande min qaari madinati kawlak hawla rawdati cheikh ibrahima luggeendi madina bayñas e heeda rawda che ahmada tijani minen calmina kala pullo ɓiyo mbimi e mbimami yon ganduɓe moƴƴuɓe ɗo fof ko fulɓe bayñas ko pullo sen tuuba ko pullo aladi maali ko pullo kaari e kaari ko pullo fof ko fulɓe gonɗo saabu o aladji abdoulayi oɗo bayñas bamum aladji abdoulayi jibina ko saare wiyetede beelel beelel sa lamdima en jolfo andata in ko pullo andi ko woni beelel wadde fof koye pulago hanki ko pulago kamko tan yahata ɗo kala ko moƴƴi ko fulɓe wona kamen tan keetori moƴƴere kono koye moƴƴere ɓe jibina ko hen ɓe mawni te moƴƴere ko hew mumen tan heewi iwde min calmini o min calmini radio fulɓe holko mbawɗan wiye mawlana cheikh alislam cheikh ibrahima ñas koko sharif o wino ko sharif zoubayr gonɗo e rawda cheikh ahmad tijani toon to fas o ari nigéria eh, o yi dental ngal o yi windere allah nde o meeɗa yi o wiya ko ganduɗa e bawi ñas o ino waɗi ko wawi haalo kono no waɗi koye aduna ko wawa haalo mm -hmm. bayñes jeeya ko heko wawa ko haalo kono no wi min ne ngol konngol uh, mbiyanmi ɗo bayñes jeeya ko, ko wawa ko haalo kono mm. noon no waɗe makko ko wawi haalo cheikh mm -hmm. ani wi leysa ma kad yuqalu fihi bi mugnin mm -hmm. والذي لا يقال ليس يقال آه، ليس ما قد يقال فيه بمغن ونا كلكو آه، واي حالو اي باينا ينا سابو سحالي دجيتن وارنكو اميدا حالد سو موجر دينا باي ياجد غاندال غال واي ياجد ولايا انا واي ياجد فايدو انا واي ياجد يدان دي ويندر الله دي موجر انا ياجد باي سند سن بواونو كو داني كو او موفتا دايبا اي كوسي e lewna ñasen e ɗo medina baye kono ala o diwi o yeehi nde wonno moƴƴere ko moƴƴereji ɗiɗi moƴƴere arde ma e moƴƴere nde jaaɗa e muɗum mhm. mbawi ñas noon ko ɗiɗi ɗi foof kala garɗo o malnuma si tawi a jattinima arani o diwa o avion o tawa e ma toon o tottuma malal makko jeeɗa e malaɗo mhm. ɗum noon mbawi ñas ala ko wawi haala e makko so wona tan laysa ma qad yuqalu fihi bi mugdin wallasi la yuqalu laysa yuqalu yo allah hokku en yidde ɗum mo jeeya e waliyaɓe allah ɓe ganduɗa sa yiɗiɓe tan ɓannduma harmi jeygol nayi mhm. nawaɗe yimɓe allah mbawi ñas wi noon o woman yuhibbuni woman yarani fi jannatil khuldi bila bohtani e kala jiɗɗomi e kala jiiɗomi ɓanndu ma harmi jeygol enen noon en jiyama alhamdulillah e yiɓɓe mbaay hay sen nde en jiyani ɗum kono noon o wi kadi heewi jiiɗomi te yiyanimi heewi mbo yiyanimi yiimi heewi jiiɗomi yii kam heewi mbo yiyanimi yiyanimi ndeke koɗi gueɗe nayyi eyi ndeke nan toon man yarani wala yarani nan toon man la yarani wa yarani nan toon man yarani wa yarani nan toon man la yarani wala yarani na waɗi jiiɗomi yiimi ɗum woni seydi aliy sise en ɓen ɓe jii baye ñes te ɓe nganndi makkama makko mbo wuratnoo to allah wadde ɓe njiimbo ɓe njiimbo ɓe malama na waɗi jiiɗa ba yiyani mbo woni gurda e baye ñes aɗa yedda mbo aɗa biskita mbo a yiimbo e zati onon ndendi zamanu kono noon a a yiyani mbo ha joni na waɗi ɓe ganduɗano ɓe jiyani mbo kono ɓe jiimbo woni enen enen hay goto men fawani baye ñes yitere kono en jiimbo saabu allah holli en makkama makko hunde e makkama makko saabu makkamaji makko hay goto waɗi en hunde e makkamaji makko alhamdulillah en jiyani mbo kono en jiimbo naɗo ɓe gandani jiyani mbo jiyani mbo woni hmm. a rendani makko zaman a yiyani zati makko a yiyani kadi o makko mbo allah rokki ɗum an a yiyani ɗum ta yiyani ene moodi allah e jeeyede ɓen ɗon hmm. wadde en calmini dental ngal foof hmm. eyyi seydi ka min beltima e ma yo allah welta e ma yo allah faano radio o yesso inchallahu taala ene faaɗi no feewni wonno koye lawol amadou habi amadou ba sare bam sa iɗum a yii nuruhu awalil wujudi wujudan فهو عدل الأصول والأنجال نوره أول الوجود وجودا فهو عدل الأصول والأنجال صلى الله عليك على آله عليك وسلام صلى الله عليك وعلى آلك وسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل جيبي yéen yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi si di baraxama OTV